Gigilai xool waaw sama yaram mbey ndaw nappkat bangi ngi dem waaw géej amul bankaas yaa dem nga dina man géej gi laay sama yaram mbey Napakat bangi dem waaw géej amul bangkas, yaa ngi dem leerul da nga ñëw géej war dina baba fajar la ñeewoo taal Sénégal dugg ci géej gi maam lebu sonu na waaw sonu la ilaha illallah ey naan muhammad rasulullah ñi dente naan la ilaha illallah ñi naan muhammad rasulullah baba di ji kila Londo gimanyi sigi bagimiri dunya ibafo nitilele nitie koko kola ni koka kolololati jeli kabrin koni nyolone koni Juluki kuru lalaba ba hewa adur nangi nono aduna da mana warna bur warna badola warna kubah warna valeur adina warna sakunyu opon dole. Warnanya na ñi xam-xam adina warna na ñi am-am aduna daa jeex nit lu jëm dewen, te perkal bakoy laxas mi ngi ci marché bi ñuy jaay dañ jéem a fàttaliku sunu bopp dee at ñi ma am dee léegi mu wër ma léegi mu wër ma gaa yi ma am loo yimi yimi marub dee di sa gën fëgg sa kër delloo loko berndel berndel ludul suru du genn sa kër sant len sunu borom bim ñu defee ay doomi adama yu gëm rasulullah ya rasulullah ya rasulullah ya. mam bam ba gi lay xol wa sama yaram bee daaw nappkat baa dem waaw geej amul bankas yaa dem leerul di nga ñëw géej dina baba bedolar dollar keur gi lu mu yaatu lol munoo fa nek yam nek lu mu yaatu lolé e un loco festel besub deh besub deh kerob besub deh besub deh besub deh ya ibu harit yang joy dekondo di joy Nando tunyoko gisat Ôi ôi ôi Kharibiangi joy Ngay đêm Ngay đêm À ngay đêm à. Kharibiangi joy Như đêm trên nam La ilaha illallah Như nam Muhammadur Rasulullah Như đêm trên nam La ilaha illallah Như nam Muhammadu Rasulullah baba <laughs> mais el alma lii il teel la ko nii alma non sori non sori euh, le treize laa yërëm jaam ñi waaw le nag mais lii mais lii garaaw na de ci album bi la bokk <laughs> ah sori waaw enregistré nañ ko ci album bi ba pare comme nee naa la album international la tey album bi mi ngi tudd démb tey dañoo gis ni musique nee nañ ndaw ñi wayuñu waaye moo tax ñun tout le temps rek dañuy jël suñu temps. Mm-hmm. Ah di leen bëgg leen wan ni ndaw ñi ñi ngi way. te bu ñu mm-hmm. jëlee sunu temps dinañ way. Mm-hmm. jaar fi sunu papa yi jaar. ku déglu Thione Seck démb xam ne way li way li. dëgg la way na lépp. papa Youssou Ndour comme ni ma ko waxee. Baaba Maal ñëpp ñoom xaar mbay ma jaaga. xam bu ma gaw la way nañu lépp. Ismaïla Lo et lu tax démb ak tey indi ñoom lañ fi nekkee woon démb mooy yeete. wax ci àddina delloo nit ñi ci yàlla tegu ci seraata mos ñëpp ay juum parce que àdduna ñu ñëpp mission moo ñu fi indi mission bi mooy mais nanga dem ba xam li la fi indi tey booy door mun nga def ay erreur ay erreur de jeunesse erreur yu bëri comprendre nga mais ci biir yooyu noonu da ngay jàngataat xam kan mooy yàlla sunu borom mun a sa mujjantal nga tegu ci euh, yoonu siraata musaxi mun ci euh, gidee sa njaboot doy na waar tabaarkàlla man de damaa jomme barki Serigne Touba gone gi lim fi ànd ak lii nii man damaa tiit billaay walaay damaa tiit mais album bi kon nar na gaaw mais kon euh, sori ba kon dañuy jox euh, euh, fans yi rendez-vous le 13 février incha allah fële ca kabana club extropique ñu ànd ci ak ndaanaan bu mag bi ànd ci ak label yu mag yi Sénégal dina wàcc de. xam nga bii damaa raay kooraa bi hmm. waaw bu ñëwee bu le treize dama koy domporte <laughs> mais nag waxal ma dara ci Elvision Média parce que dañoo nekk euh, chaîne boo xamante ni d' euh, d'ailleurs application bi génn na fi mu toll nii ku dem Google da nga def 3W point Elvision Média point com donc nga am web rajo bi am web TV bi nga ñuy am en direct ci Elvision Média donc ñu nekk ay ndaw yoo xamante ni dañoo pare. man de sama connexion bu bari lay roof rek chaque jour fii lay tëdd di leen suivre damay ree am na diversité. waaw comprendre nga c'est comique quoi. Mm. franchement ak réalité yi ngeen di wane mm. actualité yi franchement euh, loo xam ne dama koy saluer la quoi. Mm. wax dëgg yàlla muy site boo xam ne site d'information boo xam ne information ñuy jàllale day nekk information yoo xam ne négatiful wax dëgg yàlla maa ngi leen di ziar di leen gërëm di leen wax ni yàlla na yàlla wis ndox bu sedd ci lépp lu ngeen di def yàlla may leen kut kous xama ba ngeen mën a avancer te dara du leen gàllankoor na fi ngeen teg seen tànk foofu la franchement lu rafet la ñuy def te lu pro la def ma leen ci ziar bu baax donc est ce que soriba mën na promettre sama premier direct bi ma nar a def ci biir elvision media ci web radio bi ñëpp di ko déglu en direct ci par internet soriba man ak moom ñoo koy def am problème bu doon léegi sax ñu def ko man man ak yéen ba faw ba géej fer mbay xam na eh waaw donc xanaa di tàggoo rek mm. eh, di jégaluwaat ñëpp bu fekkee wax naa fi dara loo xam ni eh, juumte la maa ngi baalu ñëpp ak di leen wax ni eh, du suma coobare peut-être lu ma ñàkk xam la maa ngi jégalu ñëpp di nuyu suma papa di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ñaanal sama yaay yàlla yërëm ko di ñaanal ki nga xam ni mooy Mbengue Mboro l'international ci turu ñëpp les amis de ba yëpp l'interfamille yep yàlla na ko yàlla may guddou fan bàyyi ko fii may ko wergu yaram diko ñaan nak suma xarit suma doomu ndey ki nga xam tamit mo waral lepp muy saadi bu borom dabax construction borom mbuur mbokum yaay mam as koku xama defal na ma lepp mang koy ziar di ko wala diko di ko kër yi nak war nga ma ci tabaxal nak ni ngay tabaxé kër rafet na xama et puis bu ñu juggé ci lool di gërëm wa brada bi bu baax gërëm sama staff et di gërëm suma manager di gërëm suma soxna bu baaxa baaxa baax a baax ma nga xam mu may jappalé ci liggéey bi di gërëm papis ñaa tamit bu baax wa aar management di gërëm ko xamni nak nag ma gërëm ko moy suñu médecin di Cheikh Ahmed Tidiane Ba euh, euh, PDG impôt domaine cheikh Lissa sandoy koku mooy magu Habib Blanc koku mooy magu xapi xarim sen tiali demba sen comprendre nga kooku xaritou euh, xaritu Macky Sall doomu yaay ma jaañ doomu yaay seyna bu ba cheikh na tak yoy ñooñu li tax ma war leen gërëm moy ngeen mayma tuuti rek ma ci parce que nit nit moy garabam nit nit moy garabam cheikh ba man duma politique duma politicien bañ nako ba xawma ci dara waye dama gis luma gis ci mom muy nit mun na bañ far sa parti doo ko faale waaye dama gis ni muy doxalee ca Médina di ko doxalee banlieue di jàppale nit ñi kii far na partem farul partem dafa boole ñëpp uuf di leen dimbali lu ñu xewle mu def di jàpp ci social bi xam ne kooku booy gouverner noonu rek man danga may neex parce que ma société nga koy defal ma réew nga koy defal ma ngi koy ñaanal yal na yàlla léegali liggéey bi muy defal président eh, gis nañ ko ñun tamit ñu ngi ci ginnaawam di ko jàppale moom Cheikh Ahmed Tidiane ba lu mu baatare ñu kopp te ñu ngi ci ginnaawam di ko ñaanal yàlla rek muy ndox bu sedd ci lépp lu muy def te bàyyi kook lii sa ndoy bu baax a baax a baax acca danga may teel léegi lii nga defal ma dara ci El Vision Médias mais laata loolu damay tàggatoo <laughs> nga laalal leen dara parce que DG bi yi daf koy daaneel Elas Lo genre kora yi daf koy daaneel tabarkala mu ngi noonu tey ngeen amoon seen émission ah, ak sori ba ngeen doon ci doon ànd ak seen dom ndey docteur Gueye Bamba Baye Serigne Saliou Masirek Issa Fatim pendak ak Mañaay ni rek lan koy defee tey nag yaakaar naa su ngeen gisee waxtaan bi nu sekkoon ak sori ba seen xol war na sedd ñu koy gërëm bu baax a baax ci disponibilité bi di ko gërëm aussi ci euh, na waxtaan wu yaatu yi nga xamante ni si def na ko ak waa Elvision Media donc ñuy xaaraat leneen nag leneen nag leneen ci biir donc nag mu ngi noonu ki nekkoon ci caméra bi di mbay dollar tey moom a cadreel sama émission tabarkaala lu ngeen fi gis rek lu rafet moom la di gërëm waa El Vision Média cat ba cat peace and jaa jaajëf aca Alaaji Lo yow la ni may li dégg Zeyna bokkoo ci El kese la. menan sagita kawanto kanumbara kanimanso yelelama nyinalen shirita kawanto shimbara shirimanso yelela Yang fandil mo Mama kani go yang fa Yang fa Yang fa Ya fa masyiri Andimu Madam Koyate xanaa yaa moom loolu naan ma remartation ñi doon wax naan ma suri ba dama laa bëgg lool ndeke booba yaay ndeke booba dañu ma doon naax yow yaa ma bëgg wallaay yow yaa ma fonk lool lool lool Ya Ayo Ya yu musa ya yu astuku ya tela iya, dégg lool <laughs> ngewel na de ya <laughs> cëy bul ko sori di wax lu ñaaw ñaaw mën ngaa juum ko jege ba jege ko jege nitu ya. iya, ay ma wo ma con joyeux anniversaire. yooyu mbay. dama laa dama laa dama laa dama laa dama laa dama laa bëgg loolooloo dama say baayam alaaji Musaa Kuyaate yi baayam sama baay. asu sawa yaayam kajiru jalo yaayam wo wo yàkkamti naa yi nga wan ma sa sa soxla bi la gën soxla bi moom ci neex sa mbëggeel ni mu <laughs> ay bilaay yàkkanti naa yaa maa la yaa gën la sa cofeel li mu bari bari Man say my boss ways on again. Whoa, whoa, whoa, yeah. Among um, uh, here we gonna love her. Shiri pag ginala, manong fong su ma sama yang karet di lawa waxataane Shiriman man bëgg naa la xam sama yang karet di lawa waxataane ngoon su jot nga romb ma sangu solu man ma jooy ci yow Dila bul Bulganten Li ido gele Wayon nafi papa ju Wayon nafi wa mm. Ay domi wo wo wow My boy mbagel Sudon criminal Siri jox naa sama xol agressé ma wa wa alaaji borom elvision media, magi may dollar magi khadim lu lay bëgg wayan bamba jubbanji ko baaye moog wali doomi yaay la ñoo àndal leen doon benn yaay boy àdduna daa jeex samay mag ngeen bugguma leen gis ngeen ni xuloo baa ngi ni ko rafetal pap mooy chéri chéri soxna ay dara la karara wali balago mooy chéri bébé baasa ah, ah ah ah doon leen doomu yaay wali mbëggeel mbëggeel su doon taali Pape da dafay jaaxaan yow nga jaar ci kaw pap Diouf ay doomu yaa ngeen